baabul jinaayaati li muy buntub tooñaange ya day bëgg a wax ci tuur deret moo xam jam-jam la ba àgg ci rey bakkan yooyu yépp dañ koy tuddee al jinaaya li tax na ñu ne diw moo rey diw bay fayu ca moom mën naa amee ci mu waxal ko boppam ne diw maa ko rey nga xam ne ànd naag sagoom ànd ak tey bakkanam kenn forcé wu ko mu waxal boppam ne maa rey diw benn ñaareel ba ñaar ñi maandu seere ne diw moo rey diw ba tey loolu wér na bu tuddee nag baatub alxasaamatu dañ cee jublu juróom fukki ngiñ yoo xam ne buñ bëggee saxal ne kii moo rey bakkan bi wala ñii ñoo rey bakkan bi lañ koy def nga xam ne alxasaamatu moom dañ koy wax rek jublu ca ngiñul juróom fukki ngiñ ba tey bu fekkee ne tuuma taq na kenn ca rey ga niki am na ñaar ñu maandu ñu seere ne diw daal lan jàkkaar lool mu jam ko mbaa diw lan jàkkaar lool mu dóor ko mbaa mu wéq ko mbaa mu fàdd ko waaye nag kookee daa dalul di faatu fa saasa dundaat na lekk mu wax sax du ci ab sart moo xam gannaaw ba lekk na mbaa mu naan wala lekkul naanut waaye moom daal gannaaw ba ñu seeree ñu jam ko mbaa ñu dóor ko dundaat na dundu góorawér dalul di faatu fa saasa saasa kooku dana aajowoo mbokki kookee waat juróom fukki ngiñ boole kook tuuma ji nga xam ne ñaari seere ñoo ko wax taqal ko kookee dundaat ga mu dundaat mooy tax ñu war a waat juróom fukki ngiñ waat ne ci jam gi ko waa ji jam ba dóor bi mu ko dóor ci la faatoo faatuwul ci leneen bu fekkoon ne nag ba ñaari seere yu màndu yu seere kookee jam kookee wala mu dóor ko kooka daa daal di faatu fa saasay saasa kon dañuy jàpp ne rek ñaari seere yu maandu seere nañ ne diw rey na diw rek du am luñ cee waat mba dara day wane ni bokk na ci tuuma ya bu amee benn seere bu maandu bu seere ne diw moo rey diw waaye mënuñu am ko ko ñaareel waaye benn bi moom am na wala kookee ci boppam laata muy faatu moo waxoon ne diw de moo ma def lii nit ñi laaj ko ne ko waaw ku la def lii mu ne diw gannaaw ba nag mu faatu kon waxam jooju mu wax ne diwoo ko def loola dal nay tuumaal kooka yi nga xam ne tuuma dal na ca kenn mbokki kookee ñooy waat juróom waat ne ci jam gi ko waa ji jam ba dóor bi mu ko dóor ci la faatoo faatuwul ci leneen juróom fukk ngi ñi nag ñoom ñi nga xam ne ñooy donn ñoo koy waat te it nañuy ëppantee ca dono ba nañuy ëppantee ca ngiñ la su fekkoon ne waat war na ca te koo ko bàyyi ñaari doom ñu góor ak benn doom bu jigéen kon ñaari doom ñu góor ñi kenn ku ndey waat ñaar fukki ngiñ doom bu jigéen ba waat fukk ndax bu ñu séddoo alal ja day doon juróomi xaaj ñaar doom ñu góor ñi kenn ku ne teggi ñaari xaaj doom bu jigéen ba teggi benn mu ne nag bu fekkee deret ja dereti tey la tam aaji woo waat ña cey waat faaw góor lañu doon jigéen du ci mën a waat te it lu ñu néew néew mat ñaar jëm kaw waaye kenn képp moom du ko mën a saxal ba nangu woon a waat juróom fukk ngi yépp itam du tax mu sax faaw rek ñu mat ñaar ñaari góor mbaa ñu ëpp ko te mu ne it ñañu jiñ rey ga bu ñu ëppoon kenn it ndegam balaa rey gaa sax dañoo waat juróom fukki waat kon saye boo ñoom ñuy waat ñu jàpp kenn rek ca ñooñee ñu tuumaal waat ne kii la ñu reyal leen kooka dong waaye nag bu ñu waatee du tax ñu rey mbooleem ñañ ci tuumaal maanaam daal gépp rey goo xam ne waat daa bokk ci la ko saxal benn bakkan rek lañ cay mën a fayu ca moom rey ko waaye di ci rey lu ëpp kenn bi reyee kenn nag ña ca des ku ne ñu dóor la téeméer yar tëj la at fekkoon ne nag la saxal rey ga moom day ñaari seere yu maandu wala ñaar mbaalu ko ëpp ñoo wax ni nun noo ko rey ci seen tey bakkan kon ndegam dañoo kompaloo ñoom ñëpp la ñuy rey mu ne nag bala ñoo fay ci ki rey day fekk ka mu rey di ab julit mbaa muy yéefar buñ fasanteel wëlëre waaye bu fekkee ka mu rey di ab yéefar boo xam ne xare rek moo dox suñu diggante ku ko rey itam deretam nen na rek moom yéefar boobee dara du ca war ba tey bu fekkoon ne yéefar ba danoo fas ak moom wëlëre ab julit rey ko it wëlëre waaye tax julit ba war a fay diya waaye tax nag ñu fayu ci moom ndax ab julit moo ëpp daraja ab yéefar te balaa fayantoo am karay ak kamray nawlonte ci di gor di julit ndegam nag ki rey moom julit la te kamray yéefar la kenn du fayu ci moom ba tey bu fekkoon ne as gor dafa rey ab jaam ñoom ñëpp julit lañ waaye gor si moo rey jaam ba ba tey kon gor moo ëpp daraja jaam ndax gor mooy koo xam ne mës sa xeexal islam benn yoon ay cosaanam noonu jaam nag mooy koo xam ne dañ koo jàpp ci xeex ak lislaam mbaa ay cosaanam tàmbale woon ci noonu kon gor bu reyee jaam dañuy seet lañ war a fay ca jaam ba mu fay ko rek ñu koy tuddee xiima waaye kenn du fayu ci moom du tee nag daañu leeral ne ku rey nit te waruñoo fayu ci moom ndax ñàkk a nawloonte wala mu tey koo noppi ñu baal ko faaw daañu ko dóor téeméer yar tëj ko at ndax bakkan dafa diis te buñ ko bàyyee noonu boo tut bu ëllëgee mu defaat ko mu ne nag bu fekkee karay tëyu ko kon bu fekkee kam rey jaam la xayma ja rek lay fay waaye nag bu fekkee kam rey day gor moom diya la war a joxe mook famille ba mu bokkal dañ leen di séddale diye ji ni mu toll may leen deleb ñetti at ñu fay ci diye ja ba mat ndegam kañu rey gor la karay te tey ko bu ca sàrte dajee moom la ñuy fayu ci moom waaye ki nga xam ne moom tëyu ko diye rek lay joxe mook ay mbokkam te diye ji dañ koy àpp diirub ñetti at la nga waxoon ne reyuk tey bu amee kuñ ca tuumaal ni ki yaari seere seere diw jam diw wala benn seere bu màndu seere diw rey diw te mënu ñoom ku ko ñaareel la nga waxoon ca loola ak tey la woon mu ne nag bu fekkoon na it ak ñàkk a tey la la saxaloon loola ba tey mooy saxal lii mooy ba tey ndegam tuuma ji am na nee ñu sax ki def tëyu ko waaye tuuma ji am na faaw ay mbokkam dañuy waat juróom fukki ngiñ dëgërale ko tuuma ja ñu door a saxal ne kooku moo rey reyub ñàkk tey reyub ñàkk tey nag moom kenn du fayu ci moom ni nga ko waxe woon léegi dañuy fay rek diira daa wax ne nag ndegam ki rey moom tëyu ko nga xam ne alal rek moo ca war seere ya daan saxal alal te mooy benn seere bu góor bu màndu ak ñaari jigéen wala am benn séere bu góor waat boole ca wala am ñaari séere yu jigéen yu maandu waat boole ca la nga waxoon ne mooy saxal alal mën naa saxal li nga xam ne ak rey la waaye du tey buñ nee nag ki rey te teyu ko bu dee fay diya dañ koy jàppe ni kenn ci fañ ba mbokk ñu bokk fay diye ja ku wax ne man maa rey bañ topp ko ca loola mu tey ko ak mu ñàkkoo tayee ci yam bu ko tayee ñu war a fayu ci moom far ko jéggal laaj ko diye it moom rek mooy fay diye ja ay mbokkam duñ ca fay dara bu fekkee ne itam daa wax ne maa rey te tëyuma ko diye ja moom rek moo koy fay ay mbokkam duñ ko fayle dara ba tey bu nit tooñee moroom ma tuur deretam dañ gis ne la ca warkat matul ceerub diye ceerub diye ci boo doon seet diye boppam moom nu tooñ matul ceerub diye ci boo doon seet diyey kookee mu tooñ moom rek moo koy fay te it duñ ko ca may dele loolu lépp da ko war a fay fi saasay saasa day wax nag ku war a joxe diye lu diye jay toll mu ne bu dee ñooña xaalis la ñuy jëfalantee dañuy seet lim bu tolloog fukki junneeg ñaar ci dërëmi yoon fukki junneeg ñaar ci dërëmi yoon buñ ko seetee te daal di gaaw a bari ndax fii mu nekk nii ñaar yi téeméer yi dërëmi yoon ñu wax ni mooy nisaab asaka war ca loo ko seet seet ak loo ko néewal néewal daanaka da ëpp fanweeri junni nga xam ne boo ko seetoon ci noonu ci ñaar téeméer yu ne ci dërëmi yoon yi nga jàppee ko fanweeri junni itam du tee lim bi nga wax day mat juróom-ñeenti million neuf million dana ko mat li mu ne itam bu doon ñoo xam ne seen alal day alali wurus junni dinaar la ñuy seet junni dinaar yooyu boo ko seetloo dana bari lool ci xaalisu CFA ba ci li wax ne itam ñooñu bu seen alal nekkee gëléem téeméeri gëléem mooy doon diye ja téeméeri gëléem itam boo ko doon seet ci xaalisu CFA day bari lool ndax genn gëléem rek gis nga ni mu jafee njëkk dane nag bu fekkoon ne ñooña jur mooy seen alal gëléem la ñuy seet kon te dañuy seet li ñuy wax bintu maxaad muy gëléem gu jigéen goo xam ne am na at ba dugg ci moom ñaareel ñu joxe ca ñaar fukk ñu wax bintu laboon nga xam ne mooy gëléem gu jigéen goo xam ne am na ñaari at ba dugg ci moom ñetteel ñu joxe ca ñaar fukk ba tolloo moom tey góor it ñu koy wax ibnu laboon moom itam ñaar fukk mu juróom benn fukk li ñuy wax xiqa te mooy ka am ñetti at ba dugg ci moom ñeenteel ñu joxe ci ñaar fukk li ñuy wax jasaxa itam mooy ko am ñeenteel ba dugg ci moom juróomeel ñu joxe ca ñaar fukk soo boolee ñaar fukk ñaar fukk ba muy juróomi yoon muy téeméer noonu la ñuy génnee téeméeri gëléem ya bu ñu nee nag diye moom dañ koy joxe ci wurs mbaa xaalis mbaa ci gëléem it du tee ña nga xam ne ñoom la ñuy jox diye ja buñ juboo ci jox leen ko ci nag wala xar wala bëri wala leneen lu bokkut ak yooyu ni ki xeeti marchandise itam baax na su fekkee ne kara yi tëyu ko nga xam ne kenn du fayu ci moom day fay rek diye mook ay mbokkam kon yoon day waral ci moom mu def alamaan ñu koy tuddee kafaar ak rey dana wax léegi nuñ koy defee su fekkoon ne nag kookaa tey rey ga da ngay defee ne ci moom sax lañ war a waral alamaan bi muy kafaara googu waaye dañuy jàpp ne moom dañoo war a fayu ci moom kon nag buñ fayul ci moom ni ki laaj ko alal mu fayit ñu bañ koo rey du tax alamaan bi ñu bëgg a tudd war ci moom dañ koy sopp ci moom rek ka rey daal te nga xamee ne tëyu ko xam ne kenn du fay ci moom di ko rey moom la ñuy waral ci moom alamaan bi kafaaral rey moom dañ koy tegale ne defal nangam te mooy goreel gi bu dee jamono yi jaam amee te mën a goreel dañ koy sart dañ koy digal mu goreel ab jaam muy alamaan ba su tëlee goreel gi nag ñu woorloo ko yaari weer yoo xam ne leen di woor sësale leen du ca dog benn fan su fekkee ne nag rey ga moom moo ko tey waaye kenn fayul ci moom dañ ko laaj rek alal mbaa dañoo jékki-jékki jéggal ko daañu ko dóor téeméer yar tëj ko at boole ca ndax bu ëllëgee mu bañ koo defaat mooy li ñu waxoon léegi ne bakkan dafa diis ku rey te tey ko buñ seetee ba duñ fayu ci moom itam daañu ko dóor téeméer yar tëj ko at dafa wax ne baay bu reyee doomam ci loo xam ne dañoo jàpp ne jubluwu ko woon a rey li ki da koo sànni weñ gu ñuul rek mu dal ko doom ja faatu dañuy jàpp ne kenn lu jur nit di ko rey te di ko tey nde bu fekkoon ne moom da ko rey reyuk tey ki da koo tër rendi ko mbaamu soqi bal ci kawam kon faaw dañuy fay ci moom baay bi ndax loola xam ne ni moo ko rey ca tey ko ba reyoon doom ja nag ci loo xam ne tëyu ko lañ wax ne kon dañ koy laaj diya te mettil diya ja lool nga xam ne bu doon ci ñay joxe gëléem ba tey sax téeméer lay joxe waaye ca nañ koy joxe mooy metti ndax dañ koy wax ne ko xiqa da nga ciy joxe fanweer jasaxa nga joxe ci fanweer ak ñeent fukk yoo xam ne bu ca nekk ëmb na ba dooma nga ca biir ba diye jooju moom baay bi moom rek moo koy fay fami ba duñu ko ca fayle te it moom du ca donn diye ja muy joxe ak noonu muy toll moom du ca donn diye ja nga waxoon ci gannaaw ci bu dee xaalis ak bu dee wurus ak bu dee ay gëléem loolee mooy diye koo xam ne day góor di gor di julit mi wax fii nag bu dee ku bokk ci diine yahut ba nasaraan muy kitaabiyu wala muy zimmiyu muy ku ñu fasanteel wëlëre kum doon ci ñooñu te muy góor boole ca day am genn wàllu diye ji nga wax ne moom la ñuy jox koo xam ne day góor di gor di julit koo xam nag daa murtat génn ci lislaam ñu may ko ñetti fan ndax mu tuub laata ñetti fan ñuy mat am ku ko rey kooko dana joxe diya diya ji day doon juróom-ñetti téeméer dërëm majoo si koo xam ne nekkul ci dina ji bàyyi ko ci asamaan ni ki kuy jaamu xiram sawara yu mel ne yooyu buñ ko reyee te fay diye war ca juróom ñett téeméer dërëm lay doon ba tey jamono yi jaam amee nag ku rey jaam dañuy xayma rek jaam ba fu njëgam toll mu fay loola waaye ndegam moom mi ko rey gor la di ab julit kenn du fayu ci moom bul fàtte nag daañu ko dóor téeméer yara tëj ko at luñ la wax ne itam mooy diyey gor su góor su di ab julit wala mooy diyey ku bokk ci yahoot mbaa nasaraan mbaa yëfar mu fasal wala rek kuñ la mën di tudd daal xamal ne diye joojee bu dee góor ga lay doon waaye bu dee jigéen ja xaajub loola mooy doon diyaam la nga waxoon ne mooy diyey gor su góor su di ab julit jàppal ne gor su jigéen su di ab julit xaajub loola lay am lañu waxoon ne ab yëfoot mbaam nasaraan bu góor moom lay am bu doon jigéen ja xaajub loola lay am faaw rek jigéen day am xaajub la góor daan am dafa lim nag yu bare bari yoo xam ne ku ko def nit dee ju mat nga koy jox li mu njëkk a wax mooy tee koo mën a wax da koo dóor mbaa mu xerandi ko ba mënta waxati mbaa bokk mu dagg aw làmmiñam dee ju mat la koy fay bu ko defee loo xam ne tax na mënta làmbati maanaam dafa mel yaram wi dafa dee koy nga xam ne mënta xàmme lu nooy ak lu nooyut ndax li ko kooku def moom daal def na ko loo xam ne daanaka yaramam dafa dee ba nga xamee ne du yëgati lu tàng mbaa lu sedd du yëgati lu nooy mbaa lu ñagas dana ko fay kon dee ju mat ak bu ko defee lu tax dara xeeñatu ko amatul dara xeeñ ko mu mën a xàmmee ni lii neex na xet mbaa lii naqari na xet wala mu def ko loo xam ne tax na aw làmmiñam amatul xàmmee ci mos lu mos ci gémmiñam daal du ko saf dara xameetut lu neex lu naqari lu weex ak lu weexut loolu lépp kon ki ko def loolu dana ko fay diye ji mat ak ku yàq xelum nit di ki dóor ko rek mbaa mu xëbal ko ba mu tilbati tàggoog sagoom wala yàqal nit ak déggam def ko loo xam ne tax na mënta déggati ci benn nopp ci ñaar nopp ñi fekkee ñaar nopp ñëpp la def noonu diye ju mat la koy fay bu fekkee benn ba la ko def nag mu fay ko genn wàllu diye wala mu fuq bët ya bu dee ñaari bët yépp la fuq dee ju mat la koy fay bu dee benn ba mu fay ko genn wàllu diya bu daggee bakkanam itam mbaa mu dagg sukk bakkan wa ba tey dee ju mat la koy jox bu daggee nopp ya ndax weesu woon na yàq dégg ba léegi ci ni mu waxee bu daggee nopp ya da koy fay déeju mat waaye daam ñu wax ne su daggee rek nopp ya waaye téewul koo koy dégg ba tey dañuy seet la ci jaadu rek ñu fay ko ko waaye duñ ko fay déeju mat bu dammee ndiggul nit wala mu yàq ko wala mu xotti biirub nit wala mu dagg sawukaayu góor mbaa sawukaayu jigéen wala sax jigéen dëggul lépp sawukaayam waaye yaari wàll yi nga xam ne moo am nooy nooy dafa dagg yaari wàll ya ba yax bay feeñ yooyu yépp ku ko def war a fay diye ju mat sëkk kam ko def bu defee nit lu tax amatul man yu mbaa man yoom yàqu na dana ko war a fay diye ju mat ku yàqal nit ab gisam maanaam lañu waxoon léegi mooy fukk bët ya li wax ni nag moom mooy bët yaa nga fa waaye mënta gisati yàq na gis ba ba tey dee ju mat la koy fay su fekkoon nag kooku ñaari bëtam yépp dafa baaxoon moom mu yàqal ko benn bët ba kon na koy fay rek genn wàllu dee lu may daa fekkoon kooku pat nga xam ne benn bët la dese woon mu yàqal ko nag bët bu baax boobee kooku moom kon dee ju mat la koy fay tey wax ne ku yàq ambub jigéen te jigéen ja nekk góor benn nga fay ca yooyu jamono jaam bu góor mbaa jaam bu jigéen wala bokk ñu seet yaay ja ndegam góor la diyaam nu mu war a toll ci kooku rayoon diyee ji ñu def ko fukki xaaj lu benn xaaj ba toll rek mu fay lu toll noonu moom mi yàq ak ëmbam bu dee jamono yi jaam amee itam mu yàq ëmbub jaam bu jigéen boo xam ne lu mu ëmboon ab sangamkat la ko amaloon ku ko yàq day mel ni ku yàq rek ëmbub góor mu des nag jamono yi jaam amee bu yàqoon ëmbub jaam boo xam ne lu mu ëmb bàyyi ko wul ci ab sangam maanaam boroomam kon dañuy seet ndegam yaay ji moom xam nga ne jaam la ku ko doon xayma nu xaymaam war a toll ñu def xayma ja fukki xaaj lu tolloog benn xaaj ba nag moom lay fay moom yàq ëmb ba dañoo bëgg a takk ne baaraam bu ne daal fukkee lub diir mbaa nga ne asakay diir moo cee war ci benn baaraam bu ne loolu nag boo ko doon seet ci gëléem day nekk fukk rek moo tax xam nga ni woon ni yàlla bindee baaraamu day moom da koo defal ñaari kóol rek maanaam ñaari poñ te baaraam yi des ñoom am ñetti poñ mbaa nga ne ñetti kóol ñuy def nag baaraam yi dëy yi ku ci dagg benn kóol fay juróomi gëléem te nag baaraam yi des nga xam ne mu mat na ñetti kóol dañuy séddale fukki gëléem yi ñetti xaaj xaaj bu ca nekk doon ñetti gëléem ak ceeru gëléem nga xam ne boo weesoo ñaari baaraami dëy yi moo xam ci loxo la moo xam ci tànk la baaraam yi ci des ku ca dagg benn kóol fay ñetti gëléem ak ceeru gëléem ku ca dagg ñaar fay ñaar cab loola muy juróom benn gëléem ñaari ceeri gëléem ku dagg lépp baaraam ma nag daldi wara fay fukki gëleem xaañ xaañu moobiha mooy xaañ xaañ boo xam ne jam na ko ba yax bay feeñ waaye na taxul mu laal yax ba ku gaañ nit nag gaañu gaañu bu mel noonu dana ko war a jox lu tolloog juróomi gëleem waaye dañuy wax ne bu ko defee ci bopp wala cib jë wala cib lex la ci téere bi àtte loolu waaye bu ko gaañu seen ba yax bay feeñ waaye du ci bopp du ci jë du ci lex kon àttekat bay xool lañ cay fay rek mu wax ko waaye téere bi du ca wax dara mboolem bëñ yi nga xam ne moo nekk ci gimiñu nit benn bañ bu ci nekk juróomi gëléem moo ca war ku buddi bañum nit wala mu yangal ko ba nga xamee ni moom buddi ko ñooye moo dana ko war a fay juróomi gëléem ab dof tëyut la mu def kon ab dof bu reyoon nit itam kenn du fayu ci moom kenn du ko def dara waaye ay mbokkam ñoo dajale fay déeja tayit dañ leen di àppal ñetti at nañ ko waxe woon ñu fay déeja gone moom ngone gaay tax bu tayoon gaañ kenn mbaa mu rey kenn itam duñ fayu ca moom dañuy seet rek bu fekkee lam def lañ ca war a fay mat na ceerub diyee mbaa mu ëpp ko kon giir ga ñoo koy fay su fekkee nag matul ceerub diyee moom ci boppam rek moom gone gi moo koy fay bu amee alal fay ko fi saasa bu ko amul na ñu topp ko ko ba ba mu koy am bari na ñu wax nag ne ku ko def nit war koo fay nangam waaye jàppal ne ka def loolee bu ko tëyut dañ koy laaj alal joojee waaye bu fekkee ni moo ko tey te muy loo xam ne mënees na koo fayu ci moom te du ko tax a dee kon dañuy fayu ci moom daa am yoo xam nag moom bu ko kooko tayee itam duñu fayu ci moom ndax ndegam def na ko kee te kee moom déewut suñ koy tolloolee bëgg koo fayu ci moom amaana moom mu ñàkk ba kanam lu mel noonu nag kon dañ koy fayloo rek la ca war waaye di su mën a fayu ci moom waaye ndegam loolu luñ mën a fayu la te moom moo ko tey boole ci fayu ga moo ca war def ko lam def koo kee ba bu ëllëgee du ko xalaata defati